asalaamaaleykum sant leen gërëm leen ci àndandoo beeg télévision Futur Média benn waxtu jot na xibaaru digg bëccëg yi bokk na ci fële ca Paris tey ji la lay ubbi àtte bu lamit Diack ak euh, doomam daanaka juróomi at ginnaaw ba mbir mi xewee ba léegi moom mi jiite woon athlétisme ci àdduna wërngal këpp ñu koy toppee wàllum guerre ci ay dossiers yu bëri leeral gi ci biir xibaar yi lay doon moom euh, Lamine Diack nekkoon ab athlète ab homme politique bu am jaar jaar euh, solo waaye deram xaw a yàqu ndax wàllum ger boobee ñu koy euh, tudd dinañ ci waxtaan ci kanam tuuti ak suñu gan di Abdoulaye Thiam moom moo jiite ANPS di association nationale bi ëmb euh, presse sportive ci wàllum yoon ba léegi euh, Thione Seck moom dinañ ko attewaat fukki fan nak juróom-ñaar ci weeru février tey jile ci suba cour d'appel bu Ndakaaru daal dinay nulal kon lii di verdict bi tukkee woon ci atte bu njëkk ba moom waykat bi dañ ko bàyyi woon ginnaaw si waaye Euh, procureur dafa sàkk woon ñu euh, dem ca appel Ousmane Sonko mer bay futu ca diwaanu Ndar ba mu demoon démb moom mi jiite parti Pastef nag nee na dañ koy xoqatal jamono jii moom ak ay militant am euh, dañ leen a dàq ci benn salle buñ doon jàkkaarloog taskatu xabaar yi ñu génn ca biti di wax naka noonu commissaire ba fekk leen fa ñu ne nag loole duñ ko nangu wàllum politique képp la politique ba léegi ca diwaanu Ndar gee ca Mary Teuw Niane ne dina samp ndëndëm ci atum 2021 ngir jiite mairie boobule moom mi nekkoon jëwrin bi ñu dénk jàng mu kawe mi nag ne mi ngi woo bépp militant mit ñu dem jéem a jël euh, commune yi nekk ci département bu euh, Saint-Louis beneen ponk ci xibaar yi wàllu tàggat yaram la stade olympique bu Diamniadio doj wu njëkk wi nag dinañ ko teg ñu ne ñaar fukki fan ci weeru février lay doon yéexite gi ci wàllum liggéey wàllum marché képp moom moo ko waraloon loolee lépp tënk la ne suuti ñu yaatal ko. ginnaaw bañ leen waatee ba noppi tey jilee ci altine gi lay ubbi fale ca Paris ate bu euh, Lamine Diack moom ak doomam Papa Massata Diack ak yeneen ñeenti nit ñu leen di toppee wàllum ger ak tamit wàllum seetal xaalis ñoom ñooñu lépp ñoom euh, nag dañ leen di tuumal ni dañ doon jéem a protéger ay athlètes russes yoo xam ne dañ leen tuumaloon wàllum dopage ak yeneen mbir muy wàllum ger ñeel ni ñu joxe Jeux olympiques yu Rio 2016 ak Tokyo 2020 loolee lépp ak mondiaux d'athlétisme 2015 yu Pékin mu di ay dossiers yu bëri yoo xam ne ñu ngi ko koy toppee moom mi jiite woon I2AF ak doomam moom Pape Massata Diack nag ñu ngi gàll ci ndoddam mandat d'arrêt international ngir mu dem wuyu ji yoon fële ca France du ñàkk ci kanam tuuti dinañ ci ànd ak suñu ndaw la ñu teewal ca diwaanu Paris di Cheikh Sidou Silla moom Lamine Diack nekkoon ab athlète nekk homme politique bu xarañ loolu ñëpp naw waaye jamono ji nag wàllum euh, ger googule euh, di euh, gàkkal turam ci àdduna wërngal këpp daal dinay jiite I2AF diggante 1999 ba 2015 jamono ji ko yoon dooree topp ci wàllum ger boobule moom nekkoon na maire bu Dakar ak ministre des sports nataalam dañ ci ànd ak Alxasan Ba ci novembre lañ ko def mise en examen moom Lamine Diack ñu tuumal ko nag lu jëm ci wàllum guerre abus de confiance ak li nga xamante ni mooy blanchiment ak yeneen i nit bokk na ci sax doomam Papa Massata Diack ab scandale bu ñu jàpp ni daanaka war na àdduna wërngal këpp jox beneen xar kanam li di athlétisme mondial ñu daal di koy suspendre ci at woowule ci comité international olympique mu démissionné sax fukki fan ak benn ci wérub novembre ci atub 2015 boobu procès ñu fas yéene ko ubbi altine gi mu toll ci juróom-ñett at ak juróom benn moom Lamine Diack war a taxaw ci kanamu attekat gi Lamine Diack boo xoolee dal na jiite association internationale bu fédération athlétisme li ko dalee atub 1999 jàpp atub 2015 mu juddu juróom-ñaari fan ci weerub juin atub fii ci ndakaaru moom mi nga xam ne ci rëbës la dëkk nekkoon na ab athlète bu mag ci saut en longueur balaa nag ñuy amal sax indépendance fii ci Sénégal boo xoolee sax ci atub 1958 nekkoon na champion bu France jëm ci saut en longueur mu tëboon lu toll ci 7,63 mètres ci atub 1959 nekkoon na itam champion France universitaire boobule sax boo xoolee li mu tëboon moo gënoon kawe 7,72 mètres jot na diriger li direction technique nationale bu équipe nationale bu Sénégal ci atum 1974 ci mujjantel gi sax moo nekkoon président bi ci atum 1985 poste boobule daanaka dana ko occuper ba atum 2002. mu nekk itam ki yëngu ci wàllum politique moom Lamine Diack daal dinañ koy tabb secrétaire d'État bu yor wàllum jeunesse ak lii di tàggat yaram nekkoon na itam maire bu Ndakaaru atum 1978 jàpp 1980 bokkoon na itam ci parlement sénégalais ba atum 1993 jot nañ ko takkal ay raaya yu bëri bokk na ci grand officier de l'ordre de l'étoile équatoriale ca Gabon commandeur de l'ordre de Bonne Espérance ca Afrique du Sud officier de l'ordre de la Reconnaissance République Centrafrique commandeur de l'ordre national du Lion fii ci Sénégal ak yeneen yi raaya itam moom nag bañ ko tegee loxo ba léegi dañ ko def résidence surveillée tolloon tey ci ñeenti at ci réew France mai 2019 ci la parquet national financier bu Paris daal di sàkku ñu ubbi ab procès am moom ak doomam ji ak ñeneen ñi leen tuumal. jërëjëf Alhassane Ba ñu dellu ca Paris foofee àtte ba di am ak suñu ndaw la ñu fa teewal di Cheikh Sidou Silla Cheikh Sidou maa ngi lay nuyu Cheikh Sidou waaw Cheikh Sidou Silla ñu ne procès bi foofee mu ngi waroon a door 13h30 seen heure maanaam midi 30 heure u Sénégal ndax yëf yi door na et est-ce que tamit ñëpp ñi ñu ciy tudd teew nañu foofu ca àtte ba. confiance oui ñu ngi ko waxee procès bi door na mais am na tuuti retard parce que finalement treize heures cinquante la commencé. Mhm. parce que Lamine Diack teelul ñëw tuuti mu ngi ñëw juste un peu après treize heures trente Lamine Diack effectivement donc moom mu ngi ànd ak avocat mi maître euh, Simon Simon Ndiaye ak maître Bourdon maître Simon Ndiaye ñu bëri xam nañ ko parce que bokkoon na ci avocat yu doon euh, défendre état du Sénégal ci procès bateau de Joola fii donc ñu bëri xam nañ ko maître Bourdon aussi avocat c'est un célèbre avocat Lamine Diack nag bu mu doon ñëw mu ngi sol veste bu ñuul chemise bu weex cravate bu bleu amay rayures c' vrai que mag la sonn na mais quand même am na gis nañu mu am énergie ci ci ci ci bu ñu ko oyee sax ci ci baar bi pour mu présenter parce que bi ñu duggee président bi bi mu ñëwee dafa prévenu yëpp ñu fa nekkoon pour ñu décliner seen identité ñett nag ñoo ñoo comme ni ñu ko waxoon fan yii yëpp c'est Lamine Diack moom ak euh, Habib Cissé ak euh, Doole ñett yi ñett yi nag ñoo ñu euh, avocat Massata Diack yi maanaam Moussa Moussa Sarr Ali Fall ak Antoine Bocquier moom Paris la nekk fii moom nag bu ñu ko bu ko laajee ani Massata Diack président bi mu ko laajee dafa ne Massata Diack du ñëw mais ñoom ñooy koy layal fii ci tribunal bi yeneen Habib Cissé moom ay avocat français la yoon mais bu ñu doon génnee si saa bi moom euh, président bi dafa jox ministère public la parole pour mu wax dernier développement yi ci mbir mi moom nag dafa commencé woon ñi euh, euh, attitude Sénégal parce que nee na Sénégal coopérewul n'est-ce pas si judiciaire pour mën a am ñu mën a entendre Lamine Massata Diack donc fu mu nekk nii ce sont procès mots la coopération judiciaire a été difficile avec le Sénégal bi ma doon génne loolu da doon wax donc ñoom fu mu nekk nii procès bi commencé na ñetti prévenu ñoo nekk ci baat bi mm-hmm. Mm-hmm. dinañu continuer mais avocat yëpp ñu ngi fii euh, ça se passe dans de bonnes conditions léegi bu ñu paree dinañu jéem waxtaan ak avocat yi jéem waxtaan aussi ak euh, euh, yeneen avocat partie civile pour xam nu mu nu mu nu mu demee de toute mm-hmm. façon ñu ngi koy suivre fii si RFM xam naa dinañu am beneen développement ci ci journal 20 heures incha allah jërëjëf Cheikh Sidou Sylla nekk suñu correspondant ca Paris junj na ko sànq maître Moussa Sarr mooy kii teewal foofulee Papa jokkoo moom maître mussa Sarr ndax sotti na alo maître Moussa Sarr sottiwul kon moom moo teewal foofule Papa Massata Diack moom ci fàttali ne dañoo gàll ab mandat d'arrêt international ci ndoddam ngir mu de muy ji yoon bu France ci wàllum Lamine boobu boobule ak àtte bi sax amoon nañu yéene waxtaan ci ak suñu gan di Abdoulaye Thiam mi jiite ANPS di agence nationale de la presse sportive maanaam taskatu xabaar yi yëngatu ci wàllum tàggat yaram xaj na laata ñuy tàggatoo mu ñëw teew. ngir ñu gën a yaatal waxtaan bi ci wàllum yoon la ñuy des ak mbirum euh, Thione Seck euh, cour d'appel bu euh, Ndakaaru moom nag daal dinay nunal atte wala bokk verdict bi ñu jëloon ci atte bu njëkk bi kii di attekat bi nee na lépp loo xamante ni daal ñii di avocat yi waxoon nañ ko mu mën a gàntal procédure boobule mu ne ñeelul lépp maanaam daal li ñuy wax règlement 5 bu UEMOA bi kon nag yëf yi nañ ko bu fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru février loolee ci gàttal attewaat fukki fan ak juróom-ñaar uh, ci weeru février bi ñu dëgmal uh, jugement sur le fond kon uh, dina door ci boobule moom woykat bi dañ ko topp ci wàllum faux bier de banque trafic ci atte bu njëkk bi nag maanaam tribunal daf ko bàyyi mu dem toppeetu ko dara tey jëlee ci 13h suñu dossier bi sax ñu jagleel ko wàllum yoon ndax ñu bëri dañoo jàpp ni yenn saay dafay am ay pression yuy bàyyeekoo fu nekk yoon ak ni muy doxee ñu gis ni nag lii di parquet li muy dépendre ci ministère de la justice bokk na ci loo xamante ni yenn saa yi dafay gàllankooral seenub liggéey bu baax a baax rawatina bu fekkente ni ay personnalité moom la ñuy àtte ñoom la ñuy àtte dossiers yi ci bu gaaw dañ koy jàllale mu di ay wax yoo xamante ni nag union des magistrats du Sénégal nanguwu ko benn yoon ñoom ñu jàpp ni yoon mu ngi dox ni mu wari fii ci Sénégal ab dossier la ñu ci pafar ñi nga defal ànd ceeg Amadou Ba. di doxee paaka ñaari boor ku ci ne ak sa xalaat ñu jàpp ne ay pression yu métti dañ koy teg ci seen kaw ba yenn saa ñuy teel a àtte yenn dossier ay kàddu doy jug suñu jàppee ñenn fii ci Sénégal wàllu yoon fii ci réew mi ci situation boobu ci la ñuy xam ndax tëddee na njaaxaan naay wala déet. pression boobu euh, nekkul ci juge yi en tant que tel mais c'est que euh, nu suñu justice laloo ak nu muy doxee mooy tax. ba parfois euh, procureur yi ci boppam euh, dañu leen di tënk patron wu procureur yi mooy ministre de la justice ministre de la justice ay instruction ci kan la koy jëlee ci président de la république tout dépend nan la askan bi di mobiliser woo des fois coow mën na jib euh, ñoom ñu jàngat xool ni situation bi arrangé wu leen Euh, loolu nu ñu koy màndargalee mooy dañuy joxe yeneen réquisition yi nga xam ne dañuy ne procureur yi euh, ni ngeen war a laaj wala lii ngeen war a wax bésu audience ba. du kenn koo xam ne mu ngi yëngu ci wàllu yoon mucc na ci wàllu pression yooyu ndax boor bu ne lay jógee waa UMS di ko dëggal. bon il des pressions. ces pressions sont. waaw pression yi moom du ñàkk yenn saay mu ñëw dal suñu kaw fi muy jóge nag euh, bëri na yooyu la pression mun na jóge sa njaboot say jege ñaale yenn lobby économique yi ak tamit ci këru diine yi magistrat bu leen fàtte nag ci biir société bi lay dund dafa am i mbokk nii ñëpp ak i parents fii la bokk nag li nu mel yenn saay nag dina nekk lu diis lool. religieuse yoon wu moom boppam am na fii suñu sukkandikoo ci ministre bu yor wàll woowu nee na nag. pression yi mënta ñàkk ci wàllu yoon. aussi les fortes pressions. pression yu mag yooyu nga xam ne ñu ngi koy teg ci kaw magistrat yi loolu yenn saa mun mënta yàq dara ci sunu liggéey mais nag na am lu mu xaw a yëngal tuuti waaye du tee tamit ñu daal di am sérénité ngir mun a rendre justice te yenn dossiers yu ndaw dong lay doon ndax cour de tribunaux yi dossiers yu bëri la ñuy teg te duñu am benn pression. pression mën naa am waaye li nu mel du influencer dara ci àtte bi. yoon la ñu daal di jàpp ne nag ay mbokkam daal di jóg ngir ñu daal di koy bàyyi waaye nag nguur gi mooy jël ay matuwaayam yépp bu ko defee ñu daal di àtte rek daal di teg yoon. de faire en sorte que les règles soient respectées tout simplement. Euh, foog ñu am juge de liberté et de la détention kooku benn juge lay doon bi nga xam ne bokkul ak juge d'instruction. juge bi nga xam ne dafa indépendant moom boppam. pression la wala tombe moo waral ay gaaf yenn dossier yu bëree bëri buñ ko coowee ci ëttu taskatu xibaar yi ñu daal leen àtte leneen li ñu nemmee ko mooy ñi nga xam ne ñooy borom tur yeeg ndombal tànk yi dañ leen di gaaw a àtte lool ci jamono jooju ay sénégalais yoo xam ne kenn xamu leen ñu jiiñ leen dañuy def ay at ci kaso bi te duñu gis kenn ku leen àtte. Eh, jërëjëf Pape Fara Gningue ni ñu leen ko doon junjee sànq sunu gan Abdoulaye Thiam moom moo jiite ANPS di eh, association eh, bi ëmb taskatu xabaar yi yëngatu ci wàllum tàggat yaram Abdoulaye ñu ngi lay nuyu. waaw ñuy waxtaanee mbirum lamin Diack kon yéen ngeen koy topp waaye laaj bu njëkk bi mooy ndax yow wala waa ANPS dañoo bokk ci mbootaay bi nga xam ne dégg nañ leen boobu ba léegi ñuy jàppal tànk Lamine Diack maanaam di ko défendre. ah jàppal tànk peut-être que du terme boo xam ne bu adéquat la euh, mais euh, Lamine Diack dafa am fu mu toll ci sport bu Sénégal waxuma sax ANPS parce que nekk na fi président fédération de basketball nekk na président confédération africaine d'athlétisme pendant trente ans moom moo fondé sax CAA de 1973 ba 2003 mu am aussi fu mu teg journaliste sportif yi. parce que ñu bëri jàppale leen par ñu pour ñu am expérience donc loolu nakar boobu noonu bu ko dalee nattu boobu bu ko dalee dafa rafetoon effectivement ñu mu sentir sénégalais yi surtout ñi nga xam ne dafa bokk yëngu-yëngu wala ñun ñëpp ñoo xam ne si wàllum sport la ñuy yëngatu c'est loolu moo waral nag bu mu amee tolof tolof yooyu noonu ANPS déplacé wu euh, yóbbal ay ay ay ndaw dem foofu seeti ko pour masowu ko di ñaan yàlla aussi euh, li li li dal ci kawam mu teggeeku ko parce que ñun gëm nañ ne ne euh, encore une fois il est innocent parce que personnalité la boo xam ne day forcer respect te xam nañ jaar-jaaram dinañ jaaxal trop mu mm. dugg ci lu ñuy woowee ay extorsion extorsion de fonds ci wàllu wàllum guerre wala yooyu noonu ci mm. wàllum athlétisme en tout cas man personnellement ni ma ko xamee jaar-jaaram ak li ma jot a gis muy def au niveau international dina ma jaaxal lool d'autant plus que enquêtes yi bu ñu tàmbalee ba léegi amul benn firnde bi nu ñi teg loo xam ne lii attesté na effectivement athlète bi wala athlète bi Lamine Diack def nañu naka su dul noonu. Ah, ah, yëf yi mi ngi tàmbali buñ booy xool ci 2011 mooy ba ñuy euh, mooy mbirum athlètes russes yi nga xam ne dañoo ne dañoo doppewu te ñoom ñoom ñoo leen euh, couvrir euh, maanaam bañ mu feeñ ndax ñu jox leen xaalis am na tamit attribution Jeux olympiques yu Rio ak Tokyo yooyu yëpp ñu ngi ko ciy tudd ak yooyu génn yëpp ak mondiaux athlétisme yu Pékin yi ndax loolee lépp dina dina yomb tamit ñu seetal ko ci wàll woowu woowule. xam nga loolu yëpp ci tuuma la rek. ci tuuma la rek parce que yàgg nañ fi dëkk lu nekk ñu teg ko ci ndodd nit li wóor te wóor jusqu'à présent man gisuguma fenn foo xam ne dañuy naan dafa amoon corruption passive mu après ñu ne corruption active mais blanchiment d'argent ak yooyu noonu mais ñu ne nag dafa am négligence boo xam ne bàyyi na ko si ñi nekkoon ci wetam ba ñooñu def naka su dul noonu. ku ci mel ni Pape Massata Diack mii doomu wala. effectivement wax nañ ci Pape Massata Diack wax nañ ci ak ñeneen ak ñeneen mais li leer ba leer mooy que ni affaire bi comme ni nga ko waxee mu ngi commencé en 2001. 2011 2011 bu mu tàmbalee amul kenn ku nekk conseil IDESAF mu ne yëgul ne affaire bi am na IDESAF nee leen nag léegi comme ñu ngi jublu ci championnat du monde d' athlétisme te Londres. nos Jeux olympiques ba Londres après war a ñëw championnat du monde d' athlétisme en 2013 ca ca Moscou nañ ko bàyyi ba loolu jàll après ñu doo a sanctionné effectivement même Lamine Diack sax bi ma ñëwee conférence de presse à Moscou bi ma ñëwee conférence de presse à Pékin dégg naa mu wax loolu ci kanamu ñëpp loolu bu weesoo ñoom ñëpp sanctionné lañ sanctionné leen maintenant nag su fekkente ne est-ce que am na ay ñeneen yoo xam ne utiliser nañu nag def nañ naka sudul noonu en tout cas man jusqu'à présent mhm. musuma gis benn article musuma gis benn tuuma bu ñu tegal teg ci Lamine Diack wala benn athlète sax bu génn ne man Lamine Diack def na ma nii nee na ma naa ko jox lii wala naa ko jox lii jusqu'à présent loolu moom man comme on est dans une période boo xam ne képp kuy tuubal il faut nga il faut nga waat mun nañ ma indil kaamil ma teg ko ci nii la euh, dafa mel ni rek ay conclusions yi ARMP di génne wala IGE lépp fu ñu ko génne bu ñu la épinglé rek ñëpp dañuy tëb ñu naan yow yaa ko def alors que benn juge rek moo war a taxaw nee la tant que juge bi ñëwul ba ne attesté na lii ñu la tuumal yow yaa ko def présomption d'innocence bi dañ ko war a respecter ba mu jeex takk. Hmm. mais mënuñ tëb tëb nii rek parce que cité nañu si benn affaire ñu ne la non non non yooyu yaa ko def d'autant plus que man li ma si xaw a métti rek c'est que quand même euh, nuñ ko defee la. loolu laa hmm. ci xaw a ñaaw loolu moo tax ma bind si ba ma li ma si xaw ñaw lu mooy d'abord dañu bàyyi ba Lamine Diack jeexal IAAF parce que nekk na président de 2001 ba 2015 bu mu jeexalee ba pare mu ñëw fii Sénégal toog expérience am. comité olympique français moo ko woo nee ko kaay woon ñu si sa expérience ni ngay doxale mu déplacé wu dem ba Paris en mars début mars ah, début novembre 2000 2015 si lañ ko jël dugal ko si benn néeg boo xam ne benn 16 mètres carré 16 mètres la ñu jag du nekk si 16 mètres carré je désolé ñu fekk ko ci hôtelam taxañ ko yóbbu ko comme si te un vulgaire délinquant nangu passeport am diplomatique teree ko génn euh, euh, territoire français da nga jàpp ne dafa am man pour loolu du yoon teguñu ko fenn d'autant plus que képp ku nekk ku jàng droit même su fekkente ne université nga dem première année en droit on te dit tout simplement l'aveu est la mère des preuves euh, doomu France mu ngi nekk foofu noonu mm-hmm. moo avoué jox nañ ma un huit million d'euros ki ki ma kan ma ma ko jox c'est cette Blatter ana contrat bi ngeen am dara leeru ci te pourtant mu ngi pavané wu ba léegi sax bàyyi nañ ko totalement mu ngi waajal nekk syndicaliste jël. mbirum par par loola daal mbirum par par loola loolu kay moom. yaa ngi euh, wax ci wàllum aveu yi euh, moom Pape Massata Diack di doomam te ñu boole ñoom ñaar di leen tuumal yàggul dara moom lamin Diack am na je pense que Jeune Afrique la bu ma juumul génne benn article ne Lamine Diack dafa ne j'aurais dû mieux surveiller mon fils. waroon naa xoolaat waa bu baax. Euh, ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko war ndax loolu tamit li tubaab di wax du aveu de oui mun nañ koo jàngatee noonu su fekkente ne Lamine Diack wax na ko encore une fois parce que man je me souviens très bien. journal ba léegi tamit waxuñu ne daf ko démentir tam. oui démentir ko mais souvenez-vous très bien que affaire bi bu mu tàmbalee Le Monde dafa génne journal ba ne Lamine Diack tudd na président de la République Macky Sall ci wàllum guerre jox na ko xaalis pour mu defee campagne am. lu woo la wax ne. du benn du loo xam ne ko ci janvier 2016. mais waxi lu gën a garaaw sax mooy que le lendemain Le Monde moo bindaat benn papier mu ne loolu mosul am dafa jub fu ñu toll nii on n'a pas les moyens de nos ambitions ñun journalistes sénégalais yi ñun ñëpp dañuy toog on ne fait que Sunday Times bu bindee ñu jël BBC bu bindee ñu jël Le Monde bu bindee mu jël Reuters bu bindee mu jël amul benn depuis affaire bi mu amee ba léegi amul benn organe bu jógee fii Sénégal def defi ay investigation am d'une manière libre et transparente ñëw jëbal ko Sénégalais lépp luñ fi génnee. mais ndax du yéen waa ANPS tamit xaj na yéen oui non man kay génne wu ma si sam bopp. Mm. nag ñun n'avons pas les moyens de nos ambitions bu ñu tuddee léegi par exemple am na ay guerre. du caagi dañ koo bëggul kon dañ koo mënul. dañ koo mënul parce qu'on n'a pas les moyens de nos ambitions donc on se contente juste de consommer. Mm-hmm. man ci consommation boobu nag laa ne nañ ci moytu bu baax a baax a baax d'autant plus que le monde s'est effondré. au lendemain lu mu waxoon ñëw teggi loolu yëpp ne waxuma lii leneen lii laa wax mm. donc man loolu jusqu'à la preuve du contraire tant que en tout cas juge bi ñëwul ba établir sa culpabilité mm. mu am possibilité appel encore parce que y a double degré de juridiction ba yëf yi day door a tàmbali ba mu jeex takk ba ñu effectivement li ñu la tuumal yooyu yaa ko def mm-hmm. man damay garder nag Lamine Lamine Diack il reste Euh, innocent d'accord jërëjëf Abdoulaye Thiam jiite ANPS di euh, association nationale bi ëmb taskatu xabaar yëngatu ci euh, wàllum wérgi ci wàllum sport di ko jaajëfal ñu doon waxtaanee ci mbirum Lamine Diack dañuy wéy ba léegi rek ci xibaar yi dem fële ca diwaanu Touba foofee nag li nga xam ne moom moo di commune bi waa ARMP dañ koo jàpp ci benn passation de marché lu toll ci ñeenti téeméer juróom benn fukk ak juróomi million ñu ne nag dañ koo génne ngir jënd ay feu rouge foofule Euh, commune bi daanaka weddiwu ko sax li mu wax mooy dañoo yàkkamti woon moo waral euh, marché boobule waaye ba Badara Niang euh, moom mi jiite commission passation de marché bi foofu foofule ci commune ba nee na jubluñ ci woon benn yoon mbirum njuuj njaaj dañ koy déglu ci micro Mohamed Jo Diop ak Kala Samb bi ñuy defar PPM bi ci ndorteel at mi ci ndotteel budget bi ñu ko exécuté maanaam nekkaguñ ci woon parce que eggagul woon ci jamono bu nga xam ne boobu lañ ko woo moo tax procédure d'urgence bi jëm ci marché boobu ba ñu koy def nga xam ne dañoo waroon dellu si waat ci PPM bi maanaam dugalaat ko ci ca benn bis posté waat ko yónnee ko DCMP mu validé ñu ko ñu mën koo lancé wante ñun ci gi yàkkamti ak urgence rek. ci njuumte lu nga xam ni dal nañu ñun ci suñu liggéey ca cellule de passation des marchés parce que encore une fois responsabilité bi du maire du le conseil municipal du commune bi du askan wi man le coordonnateur de la cellule de passation de marchés ak équipe bi ma àndaloon ci ak yàkkamti ñun ñoo fàtte ñun ñoo fàtte dellu si waat ba maanaam dugal ca maanaam marché wu feu rouge yooyu yónnee ko DCMP mu validé ñu ko waane booba ak yàkkamti rek defar nañ dossier pare nañu ko daal di daal di daal di pour que avant màggal bu ñu mënee procédure bi lu mu yàgg-yàgg danañ ko mën a kile ba nit ñi yooyu ñu mën koo installé loolu dong moom moo ci dal kon pour dellu si wax ni loolu ñuy wax ci xabaar ci presse bi dëppoowul ak vraiment yéenewu commune bi dëppoowul ak doxalin bi dëppoowul ak ni mbir mi amee. ñu dem ci diwaanu Ndar Géej foofee Ousmane Sonko demoon na fa démb moom mi jiite parti Pastef waaye nag ah, naqar la fa jëlee ak mer bay futtu ndax dafa duggoon ci ab salle moom ak i ah, militant am waaye dañ leen faa génne loolee doyul ba ñu génnee ba ci biti bëgg def ab déclaration la leen fa commissaire ba fekk ak ay policier di koy dakkal moom nag nee na mbir mi xeetu ah, xeetu kon xoqatal képp la waaye duñ ko nangu ci leneen moom Sonko wax na tamit ci pël ba nekk foofulee ca Ndar Géej mu ne war nañ cee jël ay matukaay nattukaay ndax li muy faat ci ay nappkat bëri na loolee lépp dañ ci u ak Ousseynou Diop Habib Seck. Ousmane Sonko doxub nemmeeku bi mu doon amal di nemmeeku ay militantam métti woon na lool ci diwaanu Ndar Géej. Eh, euh, waaye madame laissez-nous travailler waay ça police à Vous faites tout le temps des harcèlements. Pourquoi Laissez-nous travailler. Non, mais ça, c'est des exagérations. moom nag daan nay ñaawlu bunduxataal bi nga xamante ni waa policiers yi amal nañ ko yàq conférence bi mu doon amal waaye tamit ndaje ak taskatu xibaar yi. gis ngeen ni commencé nañu waxtaan bi. heureusement teelu ñu xam fu ñu koy defee ñu yónni ay alkaati ne leen dem leen arrêté waxtaan bi ñu génn ci biti fii mbeddu mbeddu ñëpp la di fi def suñu euh, interview ñu yónneewaat police naan dañ koy arrêté du ñu arrêté dinañu wax ba mu jeex. ci ndar nag daal nañ àddu jëm ci wàllu bël bi moom Ousmane Sonko jàpp ni jafe-jafe yi bare na te ña fa loru itam lim ba ma ngay gën a yokku tax mu cay joxañ baraamu tuuma état bi nii li mu waroon def da ko deful. boo natt rek musiba la. te moo taxoon ñun ñu jël suñu xalima bind gouvernement bi en tant que député ne leen lii lan moo ci seen i pexe waaye tontu yi ñu tontu daf ñoo doyul parce que li ma ci mën a wax ci tënk rek mooy gouvernement yi amul gis-gis ak solution ci mbir mi. moom Ousmane Sonko nag jàpp na ni lu jëm ci liggéeyu bël bi yitteelul gouvernement bi ndaxte yeneen i milliards ñu ngi koy dugal feneen te lii lay bokk na ci li nga xamante ni mooy priorité doomu ndar yi rawatina nappkat yi. jël 19 milliards boo xam ne juróomi juróom-benni réew Afrique ñoo ko bokk nga bëgg ko def solution du solution ci jamono jooju ña ngay jël fii Sénégal ay mille cinq cent milliards di ko tabaxee benn autorail bu ndaw wala ay milliers de milliards di ko def ay autoroute te nit ñi ñi ngay ñi ngi ci am jafe-jafe yu mel nii. ci jàkkaaroom nag ak taskatu xibaar yi Ousmane Sonko desuwaat na ci jafe-jafe yi nga xamante ni ndar ma ngi koy dund bokk na ci loolee géej gi nga xamante ni jamono jile mu ngi wutali kër mu ni loolee nag war a ay saafara yu gaaw te gouvernement bi la ci joxuñ baaraamu tuuma liggéey yéen na mu yeexee ñu desandi foofe ca diwaanu Ndar Géej Mary Teuw Niane nag nee na ci élection locale yu 2021 dina samp ndëndëm ngir jiite mairie ba foofule moom mi nekkoon ministre de l'enseignement supérieur démb la ko xamle muy woo militant mi tamit ñu def naka noonu ci yeneeni juróomi commune yëpp yi nekk ci département bu Ndar Mary Teuw Niane ci micro Ousseynou Diop bi Habib Seck bu ñu ñoom nag bu ñu intervenir dañu ni dañu bëgg ma nekk candidat mairie de Saint-Louis te dañu may jottali tamit euh, laaj boo xam ni militants yi ñoo ko laaj di ma jottali tamit loo xam ni dëkkandoo yi mbokk yi xarit yi nekk ci communes yi ñoo ko wax mu di dañu soxla ma nekk candidat mairie bu Saint-Louis te suñu élément responsable yi nekk ci yeneen ñeenti communes yi tamit ñu nekk candidat ci loolu ma déglu leen bu baax ma dégg leen bu ma leen déggee dama ni leen ni man sama bopp dinaa nekk candidat mairie bu ndar te maa ngi tàllal loxo bépp doomu ndar boo xam ne li la sox soxal rekk mooy liggéey ndar jëriñ ndar ko nga nekk ndar ku nga nekk ci senegal biti ndar ku nga nekk bitim réew ñu àndandoo liggéey ndar benn ndar doomu ndar yi bëgg ci ndar te ndar nekkal leen beneen kii jiite au uh, uh, conseil collectivité territoriale HCCT di Aminata Mbengue Ndiaye uh, moom nag dafay woo ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite collectivité yooyu le lu ci mel ni maire yi ak ñi seen xam-xam màcc ci wàllum décentralisation ñu booloo liggéey ndax seenub collectivité territoriale yooyu le dem ci kanam moom secretaire général bu parti socialiste dafa doon daje ak jigéen yi bokk ci parti bi nekk ci diwaanu Louga Aminata Mbengue Ndiaye ay kàddoom ci micro Thierno Fall. wax dëgg yàlla Macky Sall lu toll na une institution mu jël ko sedd ko Louga ma leen xamal ne nag ki ci gën a kontaan ki leen gën a kontaan yéen ñëpp mooy le président Abdou Diouf yàlla teg ma tey ci kaw au niveau des collectivités territoriales kon mun naa ni man ñi nga xam ne ñoom laa war a gën a liggéeyal mooy leen maire du Sénégal donc maires yi lu avancé seen dëkk yi lu avancé décentralisation lu avancel aménagement du territoire lu avancel territorialisation des politiques publiques moom moo ko tax a jóg ma bëgg yéen ñëpp ngeen jóg taxaw parce que liggéey bu yaatu la liggéey bu am solo la te bu soobee yàlla Sénégal yëpp incha allah dinañ ci gis seen bopp. bu fekkente ni commune bu nekk Sénégal li mu soxla ci wàllu infrastructure am na ko li mu soxla ci wàllu développement am na ko muy ndox. moo xam école la moo xam éducation euh, ak ak santé am nañu ko am ay yoon am ay électrification ci dëkk yi yaakaar naa ne loolu commune bu ko am bu ko 577 communes yi amee yaakaar naa ne seen problème réglé na. ca Bambilor moom maire ba dafay woo ñi nga xamante ni ñoom ñooy kilifa communauté lébu yu nekk foofee chef de village yi imam yi nekk foofee yëpp ca commune ba ñu fexe ba dugal seen loxo ci diwaan beek ni muy jëmee kanam ak lépp loo xam ne da koy suqali moom Njaañ Jóob nag ne du yàgg dara dina am benn ndaje boo xam ne dina ko fa amal ngir gën leen a tàggat ci lan mooy seen wareef ñoom ñëpp mu yëkkati kàddu yooyu le ci euh, benn xew-xew bu doon am foofu la ñu doon teg seen i toogu di ay kilifa lébu yu nekk foofule moom Diagne euh, Diop ci micro Ousseynou euh, Thiam ak Ahmadou Bamba Samb. militaires yi ku ci ne bu delloo ci këram. man ndeyu njàmbur laa man saltige laa man jaraaf laa taxul ñu ilif dëkk yi. dëkk bu ci ne dafa am chef de village am imam. nan leen jox lañu moom jox leen la ñu moom xam ne askan wi ñoo leen ko dénk yéen it cër bi ngeen am ñun lébu yi ñoo leen ko dénk kon bu nu jaxasee cër yi. je vais élaborer un calendrier dans chaque village ma dem fa daje ak. dignitaires yenn ci dëkk ba ak imam bi ak chef de village waxtaan ak ñoom pour lu jëmale gox bi kanam. ndax bëgguñu ñu solal leen manto la leen di doyee lenn rek la mooy bu nu amee manifestation wala nangam ku ne sol mantoom teew déedéet. Vous êtes des acteurs de développement. Je vais organiser un séminaire avec les dignitaires, les chefs de village et les imams pour discuter du rôle des dignitaires dans les collectivités ou dans les villages. dina fexe ànd ak dignitaires yi ak chefs de village yi ak imam yi ba dignitaire bu ne ñu wax la lan mooy sa sañ-sañ ak fan nga war a taxaw ak noo war a taxawee ci sa biir dëkk. ci xibaar yi ñi di étudiant bu université Alioune Diop bu Bombay tey dañoo xëy ne daal ci diirub ñetti fan du ñu jàng maanaam ab grève bokk na ci li ñuy naqar lu ñu ne restaurant yi ah, saa su nekk daal dafay am ay rupture maanaam bu ñu bëggee dem foofee bëgg a lekk day nekk lu leen të ah, salle de cours yi doyul rawatina naka noonu amphithéâtre yi te foofee étudiants yi dañ fa sakkan loolu rawatina ñu bees yiñ fa yebal ñu dem ba diwaanu Saloum wax ci ah, marche doxum ñaxtu ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkk fële ca diwaan bu Ngoc ñi kii di sous-préfet ba nag da koo tere ñoom ñu mer bay futu ñu nekk le ndax ne nañu usine bi di Salins du Sine Saloum dafa bëgg yaatal diwaan ba muy liggéeyee yokku ca lu toll ci juróom téeméeri hectare wala sax nag lu ko ëpp ñoom ñu ne ànduñu ca benn yoon ñoom jigéen ñi ne njiitu réew mi nag jamono ji moom moo war wax ci coow loolu le Ousseynou Badiane bokk ci ñi koy ñaaw lu ci micro Ibrahima Diame ak Fally li ñu ci bett nag mooy dañoo toog 36 heures après bi ñu joxee autorisation bi préfet ci jëmmi boppam woot ma ne marche bi ñu leen waxoon dañ koy annuler ci lan la ko teg nee na comme cour suprême arrêté woon na annuler 845 hectares yi commune bi délibéré woon léegi jaratul ñuy marche ñun comme dañ ñoo yar respecté nañ suñu réew respecté loi bi ñu jox ko cëram nangul ko ko point de presse bi ñoom dañ ko doon jéem a bañ ñun na xam nañ suñuy droit lii ñuy bañ nag dañuy bugg di wéy di ko bañ dañuy wax commune bi ne ko maire bi ci jëme boppam ne ko moom ak ay conseillers ak chef de village mu àndal nit du lekk yàpp bu ñorut ñun dañoo bokk ndey bokk baay bu leen tubaab bi jëral seen dignité bu leen tubaab bi jëral seen dignité suñu tan bii nag daf ñoo jaral même bu ko góor ñi d'accord woon ñun jigéen ñuy def def ba jeex gis nga talaatay ndeer dañ ko bëgg a dekkalaat ci tat bi ndax daf ko jar ko jar mooy lan dañuy bëgg a ñàkk jëriñu laajuñu président dara président mosu ñoo gis ñun jigéeni gox bi ñu ñu ñaxtu te jigéen ñaa ngi ñaxtu fu ñu toll di laaj luñ am luñ mënut ñun nag suñu ñàkk lañ bëgg a jëriñoo kon président yow lay wax nga xool nga dimbale jigéen ñi nga xool tan bi nga bàyyee ñu ko même boo ko xañoon góor ñi sax nga joxal ma ko jigéen ñi ñun lii mooy li nga xam ne moo ñu ñor xamu nag ci wàllum ah, tàggat yaram ah, doj wu njëkk ah, tabaxa stade olympique ba ca jam ñaajo nag dinañ ko amal ñaar fukki fan ci weeru février bi ñu dëgmal liggéey bi bi li waral mu tardé rek mooy ay jafe-jafe ci wàllum passation de marché ni ko président Macky Sall waxee woon euh, ci euh, discours 31 euh, décembre bi stade olympique boobule ñu ne capacité bi maanaam mën na dalal lu toll ci juróom fukki junni place te ci atum 2021 bu sobee borom bi ci la nara pare dañuy egg seeg yéen ci ponk bu mujj li li yëglekaay yi xëyee tey ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf ñoo lànk gi doon wut ñu leen bañ leen li ñuy bañ l'observateur og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 Sourika di Moustapha Diakhaté ABC nee na Macky Sall a dàq mareyeur yi ci réew mekk gerew bi ñu fas yéene ginnaaw suba sursoi nee nañu a ñu association nationale des mareyeurs du Sénégal ci li mu wax ci sursoi Touba bokk na ci li mu sàkku ci askanu Kayaar ñu teeru bu baax a baax projet bii di Barna Sénégal di projet boobu dugal nañu ci juróom-ñaari milliards li ko tax a jóg mooy transformation farine de poisson président association des insuffisances rénaux di Amidou Diallo mi tuumal ministre Abdoulaye Diouf Sarr ak ministre Mansour Faye ak njuuj njàcc ci kit da yi les école nañu moom Amidou Diallo ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr xëy na ko pikir dose bu saf-sàpp ubbil yéenekaay bi Abdoulaye Diouf Sarr na marché boobee waa ji di wax ci ndorteel atum 2017 la woon booba fekkagul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 jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye sant ko gërëm ko yéen itam sant leen ci àndandoo beeg télévision Futur Média 19 h allah rédaction bi dina fi ñëw yaatalal leen yeneen xibaar di leen ñaanal ngeen yendu ak jàmm.